et puis pas beaucoup encore. Non, mais il y a des choses. Ah, mais... Fallu sama manager bu bees bi yóbbu ko woon yow man foole naa Ibou Ndour yaa ngi ne sama manager bi lii bàyyi na jërëjëf. non non franchement. yow da ngaa baax yow da ngaa gën yow sama am na nga jippee dëgg neexul moom tamit kenn gënu ko. barke rasulaay bàyyi ngay daal waaw waaw ma bokk nag nga nekk ci sa mag bi tamit di ko jàppale yàlla seen jàmm yàgg kenn gënu la bëgg yaa baax